Hello, everybody. Ladies and gentlemen, guys, how are you doing? I miss you all the way because it's been a long time. My name is Sharif Hussein from Field Team. So, our lesson today is about uh, some school vocabulary words. And then, guys, we're gonna enjoy a lot and we're gonna get benefits from this lesson today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mbokk yi topp seen seen YouTube Fast English in Wolof ñu ngi leen di dalalaat ci beneen yoon ak suñu leçon bu bees mu nekk leçon boo xamante ni dafay aju ci vocabulaire yu maanaam baat yu école ak dundu école beeg affaire yooyu ak yenn expression kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nañ négandiku ne ni ñu dikk ak yéen ci leçon bi su ko defee mbokk yi dañuy commencé leçon bi mu ni school life school life school life mooy dund école bi kon dund école bi lañuy ñuy commencé mu ne schooling schooling lan lay firi schooling mooy jàngam école maanaam jaar école waaw scolarité la ko français wooy benn yenn baati français yi ñu jéggal ci parce que dañuy bëgg mu gën a leer waaw parce que am na baat yoo xam ne du faral di am ci wolof bi kon mbokk yi loolu ñu bàyyi xel bu baax schooling kon schooling mooy jàng école maam jaar école teaching teaching teaching mooy jàngale teaching mooy jàngale a teacher a teacher teacher a teacher mooy jàngalekat professeur waaw a teacher mooy kat a people mën nañu wax a people wala a school a school boy wala school girl a people mooy ab élève moo xam góor wala jigéen a school boy mooy ab élève boo xamante ni bu góor la school girl mooy élève bu jigéen a class representative a class representative mooy délégué bu classe bi maanaam classe chaque jour euh, ci école bi gars yi jàng xam nañ ko dafay am ku ñuy teg responsabilité ci loxoom kooku mooy doxal classe bi ci biir élèves yi kooku la ñuy woowee responsable bi wala délégué bu classe bi boarding school boarding school boarding school mooy école euh, internat internat lañ ko wooy boarding school mooy internat internat nag euh, bérébu jàngukaay la boo xamante ni ka jàngee du ñibbi mais bu wàccee foofu lay des waaw bokkul ak ci jàng di wàcc ci jàng di wàcc danañ xam naka lañ koy waxee ak élève bi nga xam ne dafay jàng ci internat moom naka la tudd kooku ñu ngi ko a boarder a boarder mooy ab élève boo xamante ni ci internat la nekk maanaam su jàngee du ñibbi waaw dafay nekk waaw soo muy jàngee fa lay dëkk ok euh, bu ko defee contraire bi mbokk yi mooy a day boy wala a day girl a day boy mooy xale bu góor boo xamante ni jàngee fa la du fa nekk mais day day ñibbi waaw day jàngi wàcc jàngi wàcc élèves yi dañ jàngi wàcc bu dee góor nga ni a day boy bu dee jigéen nga ni a day girl mbokk yi noonu lañu ñu continuer ak yéen ci suñu baneen vocabulaire bi muy uniforme uniforme élèves yi danga leen di seen wala hmm, élèves yi da nga leen di seen ñuy sol seen yére yoo xam dañ koy nuroole ñu koy uniforme ci français waaw loolu mooy uniforme bu dee anglais nag uni lay wax mais doo uni uniforme yéen bi ci topp mooy blackboard blackboard mooy lan tableau noir tableau bi nga xamante ni ci la ñuy bindee ci classe bi moom la ñu woowee blackboard kon dañu jàpp ni blackboard mooy tableau bu ñuul bu ko mooy tableau board rek buñ ko doon tableau la fay firi mu dee nag blackboard mooy tableau noir mu des beneen muy whiteboard whiteboard mooy lan tableau blanc tableau blanc lañ ko wooye mooy tableau bu bu weex bi tableau bu weex bi yooyu nag euh, bari na lu mu nekk cité université à l'université dañuy faral di am white board white board lañ faral di am même am na ñuy jàngale si net bi dañuy faral di utiliser white board di ci binde desk desk nañ koy woowee bureau table yooyu nekk si bureau yi waaw desk the playground playground mooy cours de récréation playground cours de récréation élèves yi génnee ëtt boobu ñuy footballé wala ñu fay fowee foye yi xam ne xale yi dañ koy def rek boo demee école bërëb bi ñu foy foofu lañ yooyu playground playground parce que play mooy suuf play mooy fo ground mooy suuf kon playground suuf suñu fu ñu fowee a punishment punishment lan lay firi punishment mooy sanction waaw mooy mbugal élève bi léeg-léeg dafay def yenn dëngte jaarale ko yoon benn ñu dàq ko benn ñu binduloo ko dara wala lu demee noonu la kon la la na punishment euh, bi ci topp mooy to teach mooy jàngale to teach mooy jàngale to learn mooy jàng to learn mooy jàng to teach mooy jàngale to learn mooy jàng muy jàngale kon the curriculum mooy euh, programme bi nga xam moom lañ teg programme bi waaw ñu jël géographie euh, euh, jëlaat yeneen yi nga xamante ni mooy matières yi anglais français ni yii moom la ñuy jàng ci kon loolu mooy programme loolu la ñu wooyee curriculum the curriculum mooy kon programme subject subject mooy li ñuy wooyee li ñuy subject mooy matière tey da nga seen koo xam ne ni anglais mooy subject am waaw nga seen koo xam ne ni français mooy subject am français la gën a jekk kon subject gaaye mooy lan mooy euh, matière arithmetic arithmetic arithmetic arithmetic mooy lan mooy li ñu wooye calcul calcul dañ koy faral defee ci classe yu ndaw yi xale yi ndaw dañuy def calcul grammar grammar mooy grammaire grammaire li muy jàngale mooy naka la ñuy tegale phrase yi phrase yi ba mu jaar yoon su ci lii amee day yàqoo bu ci lii amee nangam ak nangam kon loolu la ñuy woowee grammar grammar nag langue yëpp dañ koy faral di am euh, mbokk yi noonu lañuy ñuy continuer ak yéen euh, mu ni spelling spelling mooy lan spelling mooy orthographe orthographe lan mooy liggéeyam baat bi niñ ko bindee ndax ni la wala du niñ ko bindee ni la wala du ni jiital moo war a jiitu wala baat bii nii fi mu nekk beneen baat moo fa doon nekk kon spelling mooy orthographe foreign languages foreign languages foreign languages gars yi mooy lan mooy euh, langue les langues vivantes la ko français far les langues vivantes comme anglais euh, espagnol français yu demee noonu wala japanese gars yi wala chinese <laughs> ñi am dañuy jàng chinois su ko defee noonu la ñu ko tey mu ni physical education physical education moom it matière yi la bokk parce que daf lay may ay point waaw daf lay may ay point ñu koy PE mooy lan gymnastique waaw gymnastique waaw gymnastique dafa mbokk ci sport yi nga xam ne ni école lañ koy faral di defee école dañ koy dañ koy dañ si tàggat élèves yi waaw bu ko defee day bokk ci matière yi nga xam dañ la si may ay points physical education buñ koy gàttal nag dañuy def PE PE kon dañu xool ni PE bale la lañ jël ak I bi nekk fi muy E bi muy PE muy firi physical education muy LEPES LEPES lañ ko far di muy EPES euh, gars yi dañu continuer ak yéen the level wala the standard the level wala the standard mooy lan niveau waaw niveau ndax standard mooy niveau tolluwaay level mooy standard ba tey standard tolluwaay to succeed to succeed mooy nga jàll nga admis nga benn examen mais examen bi am nga six am nga succès waaw to succeed mooy nga jàll maanaam nga admis wala la nga doon wax la nga doon wut nga am ko fail fail mooy échec yàlla nañ ci yàlla mucc échec mooy la nga soxla woon amoo ko la nga doon wut yaakaar ju tas nga ci jële élève bu fekkee dafa def fail ci examen bi mooy jàllul to sort to sort nag mën na la dimbali pour nga bañ fail <laughs> to sort mooy lan mooy nga góorgóorlu moom liggéey bu baax waaw nangoo jàng sort yii ñu ni diw moom dafay def to sort sort sort mooy góorgóorlu baax jàng su ko defee mën nga mucc ci feel <laughs> bu ko dee def succeed kon mbokk yi noonu la ñuy continuer ak yéen the school year the school year mooy lan année scolaire atum njàng mi atum njàng mi moom lañ naa the school year bi ci njëkk moom the timetable wala the schedule timetable mooy lan mooy eh, li ñuy wooye emploi du temps emploi du temps mooy tëral liin waxtu wi liñ tëral pour ñu doxalee ci maanaam tey da ngay dégg ñu ni ñu ngi war am France ci suba gi tey ñu ngi war a am anglais ñu ngi war a am espagnol loolu la ñuy wooye maanaam programme bi nga xam élève bu jàng chaque jour da koy da koy xool the the timetable wala ñu wooye ko the schedule a class wala a period class ba tey mooy firi class bi nag lañ ci jublu jubluñ ci classe bi mais lañ mooy mooy cours classe mooy ab cours ba tey dafay firi ab cours ok cours maanaam cours yi ngay am di jàng cours français la am wala beneen ko a break mooy récréation break mooy récréation élèves yi dañuy faral di génn euh, bu 11 heures jotee 11 heures 30 ñu duggaat la ñu woowee a break the attendance register the attendance register mooy kaye bi nga xam ne ni ci lañ bind ñi teew kaye bi ni bind élèves yi teew moom la na di attendance register ko defee ñu mën a xam élèves yi nga xam ne dañuy daw jàng <laughs> school holiday school holiday mooy fête mooy euh, li ñuy wooye vacances scolaires fête boo xam te ni vacances yoo xam ne ci vacances yi école bi la bokk école léeg-léeg dañuy am school holiday beneen bi ci topp mbokk yi mooy a form wala a grade grade wala form mooy classe bi nga toll rek waaw form wala grade waaw bu dee british ñooy faral di wax a form bu dee ñi nga xamante ne ñooy américain yi ñuy faral di wax grade di nga ñëw bi ci topp mooy compulsory compulsory mooy mandatory ba yem mooy mandatory compulsory mooy lu war nga mooy obligatoire ci français compulsory wala mandatory da ngay dégg daal école ñun lool li de moom compulsory la maanaam lu ñu war a def la wala mandatory la lu ñu war a def la soo ko deful rek dañ lay teg ay sanction beneen bi euh, mooy optional wala elective léeg-léeg matière am yoo xam ne elective lay nekk yow yaay tànn wala optional optional ba tey mooy loo xam da nga ci am option maanaam da nga mën a tànn option la anglais wax optional nag mooy loo xam ne ni mën nañ ci tànn wala elective xam ne ba tey tànn la play through one play through wala to skip lessons play through one mooy daw cours daw école bañ jàng ñu wooye daw jàng xale yi ndaw yi daw jàng seen Eh, yaay di leen di ci école play tron waaw wala to skip lessons to skip lessons ba tey mooy daw jàng kon mbokk yi noonu la ñuy continuer ak yéen ci expression yi ñu bàyyi ci xel ba baax expressions school ay expression la yoo xam ni ci école laaju to call the roll to call the roll mooy lan bu ñu waxee ñu wax mu ñu neexee ñu wax to call the roll wala to call the register waaw mooy def li ñuy wooyee euh, rappel maanaam bu ustaas bi wala professeur bi duggee ci classe bi dafay rappel élèves yépp pour xool ba xam ñoom ñëw nañ wala ñëwuñu woo tur waaw ku ku teew ñu ñëw na présent ku ñëwuñu ni absent kon loolu la ñu wooyee to call the roll to be late to be late mooy tardé waaw tardé to be late mooy tarde to be missing to nag mooy bañ a ñëw waaw boobu moo gën a kii to be missing mooy nga bañ a ñëw école waaw mooy nga absent waaw he is below standard bu ne benn élève he is below standard maanaam amul he is below standard mooy amul niveau wala ñu ni he is not up to standard he is not up to standard moom amul niveau kon ñaar yi yëpp mën nga kaw beneen bi mooy he must repeat a year dafa war a baamu année bi dafa war baamu année dafa war a baamu année waaw dafa war a répété année bi dafa redoubler moo tax mu war a baamu année modify proficient in wala nga di modify is good at mathematics modify ku garaaw la naa dafa aay dafay toj mat bi waaw proficient mooy ko xam dafay toj matière ma proficient in nangam mooy ko xam mbir mi def ci garaaw bu ne euh, comme li ñu la jox modify is proficient in mathematics mooy modify dafa garaaw ci mat daf ci garaaw day tojal gaa yi mat mais tooñ màdd bi ci topp mooy eh, bu ne diw modify is good at mari marriage mooy dafa garaaw ci mat ba tey waaw good at nangam benn mbir mooy nga garaaw ci nga man ko lool mën nañu wax ba tey mbokk yi he has a good command of English he nga ni diw de ku maanaam ku ku am xam-xam la ci anglais he has a good command of English ku am xam-xam la ci anglais ndax nga di maam Cheikh Top has a good command of English maam Cheikh Top ku am ku am ku am lii la ci anglais maanaam ku am xam-xam la ci anglais you have a flair for languages yow da am ak may ci langue bu ne diw you have a flair for languages mooy da nga am ak may ci langue bi maanaam da nga da nga cee garaaw lool am na ñoo xam te ni langue dañ koy mën a jékku bi ci topp mbokk yi mooy bi mujj mu ni school is out school is out mooy école jee na école tëj na waaw li yi bëgg a dégg tout mooy school is out <laughs> kon mbokk yi eh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen a ngi ànd nag seen mbokk Chérif Ousseynou jege jóge Full ñu leen di sant lu bari de sàkku ci yéen ngeen ko abonné gun nga abonné baneen bi ñu gën a tas euh, vidéo yi partagé ko mm, xarit yi ngir ñu gën a mën a jëriñante bu baax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu